mu ngi fee bargo jajaay koon bari fee yee aka waya tee doom ji Malick Kumba xaya tee bargo mi ngi xëy di gontu bëgg alal ba àdduna jay ko foo ko fekk mi ngi doxontoo xale jigéen ñi bargo léegi sëriñ bi de moo ko taala ragal na jabaram kooku muy am liggéey waral tapi di ko chantage dama fàtte mbegere délégué de quartier bi muy doonoon simaam aya ñoom bugguñu jàmm ak salaam moo tax ñu ngi dóor ak saga bàyyi ngooñ ko solo génne di dugg ci lu ne du moroomu gone jaay ngooñ du ko fowe nono du ko kofe te fépp la mëne ah Burundi jóge na Colombie mën a xànju lu ko neex lay sol nañu bëkk néegu sëñ bi foo ko fekk ci wetam rek lay toog sëñ bi nga def. maa ngi sant kooku. naka yi tey. sant yàlla. man de sëñ bi laa soxla woon sëñ bii la. sëñ bi daa fatu de keesu na. moom laa soxla woon de sëñ kan ba koy soxla boo bu ma la fekk foofu de boo ma taxee jug di am lu la mitti de. waaw xaaral ma ñëw fekk la foofu ba wala nga maa fekk fii. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi naka yi tey. sant alhamdulilah. yaa may gaañ de. sëñ bi laa soxla woon. së bi mu ci biir ma la tuuti. waaw laa soxla woon yaa may gaañ da ngaa seere de. waaw jugal ma dama man xiiboon ma la fekk fa nga xam kan ngay waxal dégg nga. maa ngi waaw ma la woon xel. sëñ bi laa soxla ah, ko waxatul xam nañ ko. waaw xanaa yow si cat cat la ngay muslu de. waa ji bari ji jaru ko sëñ bi laa soxla. dama lay wax rek. nit ak genn wàll gi de moo la yittewoo woon xaw na ma fitnaal fii nag ci ci ci bunt bi. waaw ah, waaw ah, xaw xaw tuut mu damm. ah ndax wóor na ma ba ko fi. ñun yàlla kese la. ah noonu. yàlla kese la. Ah, kii loolu waaye kii daa duuf de. ñun yàlla kese la. man de. sëñ bi ñu ziar la alhamdulilah harika ñu ngi baax a harika harika dama nekkoon tànk bi waaw man de yéen a lay teewoo dama nekk mbëru làmb si koñ bi mhm. ñuy may woo Hercule Hercule waaw Hercule laa tudd mhm. maa fi nekk bëri na mais sama combat mu bëri na am naa dix combat mhm. waaw mais cinq match nul cinq défaite cinq match nul cinq défaite waaw am naa cinq match na di waaw loolu la daa am hmm. waaw te may champion koy déet yow kay da nga naan yaay def tëru koñ bi. am na waay sàmm yi yaa yaa yaa yaa ngi diggante defet gi ak niil gi. waaw loolu de mën na nekk champion kay moom day mel ne saa waay ci suñu bàll. dëgg la suñu bàll kay mel ni. moom day daan. waaye kenn. dëgg la waaw waaw. noonu la dinañ ci def ñu suñu gëm lay kattan. ba lépp lu wax suñu diggante yow. nga def ko. yaa ngi dégg. waaw waaw li ñu waraloon tànk loolu moo tax ma ñëw ndax. tamit tam daa am feebar biir boo xam damay daane. heure bu ma amee combat rek damay daane. moo tax nag ma dégg la ma ne daal naa ñëw moom sëñ bàyyi si koñ ma ñëw xool ko mu dimbale ma si waaw. am nga soxna. waaw am naa ñaari soxna. ñaari soxna. waaw. si koñ bi fii la la ne. waaw ñaari soxna waaw. ah. Hmm. say soxna moom xëy a toll. waaw yow mbër nga. waaw kenn ki Mounas lañ koy woowee. Mounas Mounas Pata. Ah. waaw mi ngi fii si koñ bi sore wala noonu tam. ci ginnaaw gi. waaw Mounas Pata. yow yaa ko maa ko yor ah, ak ak ak ak daba ak dëkk fii. daba ma. daba daba pata mi ci ginnaaw. yaa ko yor maa ko yor loolu mu lox loolu kay ah déet munoo boole daan ci kër ga ah. di daan ci lamb ja yow munaas pata ak daba pata ah. ñoom ñeent rek dañuy représenté fukki nit ak juróom ci kër ah waaye man xanaa gisoo sama bind man ne mhm. sëriñ si baax na lool mhm. nga ñëw suñu ñaanal la baax na lool ndax nun loolay suñu wàll ci yéen mhm. waaye sëriñ bu ne ñaanal ngay góor góorlu am pas-pas di dumooyu kër ga la fa ne yor sa ñaari jéggi na faj ci kër ga na mbëru làmb nga bëgg daan ci kër ga daan ca làmb ja xam nga ne du sotti yéen ak footballeur yi yéen a yam ndax footballeur bi nga xam ne dafa bëgg a ci kër ga maanaam dafa bëgg di dugal ci camp yi ndaw yi ci kër ga bëgg di dugal ci camp yi mag da ngay dëddu di dummooyu di muñ yi ndaw yi kër ga tant que yéen mbëri yéen a ko bàyyi seen bët yii ak seen xel yii doo leen daan xëcc ca làmb ja kenn dégg nga ah, li ma bëgg nag mooy hmm. danaa fexe ba nga am ay victoire yu bëri ay ndam yu bëri hmm. waaye ñaari kaa yi jëkkër yi yu ndawee hmm. kaa yi ndaw yi yu xëyee te doy waar yi jëkkër gi nga du mooy leen ah sëñ moo leen dimbalee moom mbaa dana baax ah kon de moom doo doo daan kenn ca lamb doo ah waaye dimbale waaye ndax tamit xam nga a yëg dama yëg sama bopp ma uh-huh. kenn du ñàkk te doo yëg sa bopp yaa ngi dégg waaye fa la nit ñi de leen muñ mbër ba ay nit toll poye sa ginnaaw koñ bi yëpp topp ci yow ne Hercule lañu ñu yaakaar Hercule lañu ñu gëm da ngay sóoraale waa koñ bi bu leen bëgg lu neex ca kër ga bay jooyloo waa kër gi yaa ngi dégg xale yi la ñuy supporté da leen bàyyi xel su dëgg danaa la dimbali nag fajal la sa biir bi fexe nga daal te moytu jël ba ca kër ga Did you leave? jege ci kër ga de. incha allah mu leen du mooy baax. incha allah. dugal ko ci biir bi nga xoos ko ci xoos ko ci biir bi dugal ko ci biir bi nga xoos ko ci bu baax a baax. dama ko def si loxo déedéet yére bi nga di yére bi. bàyyi xelu mbër mi. waaw ayca dugal ayca dugalal dugal yëngu dugalal bi biir ayca na biteel bi yëngu na biteel bi yëngu baax na yëngu xoos ko ci biir na yëngu na yëngu baax na yëngu na wàcc xoosal. na wàcc bu baax bësal baax xoosal xoosal ci yaram bi xoos ci yaram bi lii ngay gis nii moo nekkoon sa ab liggéey bu bon jàngoro bu bon yow mënu woon daan kenn ca làmb ja bis ni ki tey nag lépp lu fekkoon sa yaram wi dindi naa ko da nga doon dee ñetti fan moo desoon ci àdduna ñetti fan moo desoon ci àdduna bu ko fi bàyyi uh-huh. soo delloo ba sa kër uh-huh. bala ngay dugg sa buntu kër nga gas ba mu xóot daal ne maa ngi fas yéenee du mooy sama ñaari jeeg ci kër gi uh-huh. te fas yéenee daan ca làmp ja incha allah suul ko foofu te dugg si biir incha allah jërëjëf sëñ bi ñu ngi jaar bu baax jërëjëf ay buñ toppee si ginnaaw da ngay bàyyi xel tey góorgóorlu. ah ci lu booy rek. waaw ah, waaw ah, kon da ngaa xam sëñ Mbiré mi. waaw damaa xam sëñ Mbiré waaw. ah waaw c'est normal de booy defet gi dalaa sonal de. ah yow tamit defet quartier bi sonal na la de. Ah, waaw waaye damaa bëri adversaire rek. waaw loolu maa ngi yow daanaka ñoo yam kii rek. kon te ngaa jël sa soxla. ah waaw kon mu ci biir. mi ngi si biir waaw. waaw nuyu ma sa papa. jërëjëf waaw. Hmm. incha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi la. maa ngi am jàmm. barikàlla. su ma dee way sëñ bi su ma dee way sëñ bi na boo ci dégul ah bu ma jox saw teel ma sama mit soo ko defee juróom ma ngi doo ci mucc di nga ràmb te di nga ràkk da ngay ñuul da ngay ñaaw doo dem arjana waaw ay doo dem arjana waaw bëgg naa lool yegg na suuf bëgg naa lool barkaala. jàpp àll. ah kay ah kay kay sàkk ma sama mbégte de sàkk ma ko de sama mbégte moom sàkk nga ko bu baax a baax a baax a baax a baax barkaala d'accord nee naa ko bëggee yaa ngi nga lool barkaala. maa yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. sant yàlla bu baax a baax. jàpp àll. maa ngi nag. sikkuwut kii moom xanaa newu fi tey. ah naaj ci ah, ah, gannaaw. Ah, baa dérangé wu ma la rek. waaw ah man maa de. Mm-hmm. am mbir bi ma ci rek. Mm-hmm. ndax umpale woon ni quartier bi. Mm-hmm. jamono gii ñu toll sama loxo la nekk. gannaaw nag sama maama ko yoroon. dee. bàyyi fi sama papa ñëw jël ko moom it dee bàyyi ko fi man ma ñëw jël. Ah, ba xam nga ne de man moom am naa yaakaar naa fi yàgg. waaye da nga faatu waaw. Mm-hmm. léegi nag moom bu loolu weesoo ma yor fi ay adversaires yi nga xamante ni ñoom laa bokkal quartier bi. Mm-hmm. xëccoo gi bari na mbel-mbel gi bari na ñoom ñëpp bëgg a jël quartier bi ngir téye ko seeni loxo. te man am naa ci quartier bi cofeel am ci yéene ndax des fois sax kenn mësumaa gis may see film waaye des fois damay gént gént yu bon sëñ. Hmm. waaw. des na ci dafa ñaar di gént ay ay ay film vampire. Hmm. di ko see di nekk acteur bi. vampire waaw mooy ñi ñi màtt fii. am naa waaw des fois nag ma gént kii mooy loo gardu yi. Hmm. ñu may dàq ji di ma màtt. waaye xorom na de. bi. ma bëggoon nag nga defal ma ci ay ñaan ngir coow wàcc gént yu bon yi mooy gént nga defal ma ci ñaan waaleykum muy wax tey la moom kii bàyyi ko teel bu ma nuyu bu ma nuyu bul wax man déet man aw ma sëñ bi da man mii rek chef de sëñ bi li am ba des mooy gis nga kii dafa nekk ci quartier bi liggéeyu te nangu bàyyi karti bi ak ñaan nag doo ko fi jële ndax fii moom maa maa ko moom fii moom may borom waaw sëñ bi taal bu yàlla taal kay sànni ci matt a gën fay ko ah léegi nag sa biir wax sànq dégg naa bu baax li nga wax moom it day kenn ci man bàyyi ngoon diggante bàyyi ngooñ ak suñ biir a mbay loolu adduna yëpp xam nañu ko. Hmm. fii ci réew mi nag ngay gis ku ñu dénk ab poste ab poste bu mu mën di doon nga yaakaar ni yaa gën ñëpp. ci hmm. jëflante nu la neexee. Hmm. te xanaa xamoon yàlla suñu borom bu la ko ci mbooloo. ne la yi kay jiite. responsabilité boobu boo ko xamee da war a tiit waaye da ngay gis nit ku ku ñu fal ab poste mu ay mbokkam ay xaritam. ay jege naaleem ñu war ay sabar di tëgg ko way ak a fecc di puugariwu di di waay di di di daraja yaakaar na ñoo gën ñëpp mbegere wax nga ko sànq sa maama yoroon kàcce bi faatu na sa baay donn ko faatu te la yóbbu sa baay ak sa maam mbegere yow mii du la fi baax mbaay ngooñ nu ngeen góorgóorlu te xam ne pàkk bii suñ borom dénk la ñëppay ñëwit suñu borom ma leen fa yabal moo wasu ci àq te yàlla rek tax te ngeen góorgóorlu. xam nga moo fi jar xiiroom nga yow sëñ bi man wax dëgg yàlla karti bi moom dama koo soxla dégg nga man nag maa ngi liggéey ndax lu mu dee dee indi naa pàkk ci quartier bi dégg nga leneen ak leneen maa ngi koy dugal moom lu mu dugal lu mu dugal ci quartier bi. ba mu nekkee ci pàkk bi léegi laaj ko ndax mos naa fay yebal waa biir ne ko kaay dagg juuti wala téem. man maay demal man maay demal sama bopp. ndax a ngoon sama diggante mbagare mbagare rangoñ rangoñ baaxul fii gi daanaka bu fekkee ay rangoñ dafay tuuru rek dama fi gis leneen lu bokkut ak loolu rangoñ yi delloo ko mu jóge woon delloo ko na na dellu bësal na dellu na dellu baax waaw yow da nga wéyee de bu mandat bi jeexee danañ woote réunion mandat bi jeex na tàkk quartier bi ñooy woote wax ku ñu bëgg mu falu ñu fal ko loolu kay sëñ bi jërul laaj quartier bi waa quartier bi nañ may fal doon la dagare chef de quartier ak kenn du ko donn ndombal tànk ña ngay jiite ñoom ngay doy ci njub ci maanu fukki at ci gëm yàlla fukki at ci dël la doo nga póoj yow sa parc bi mosuma faa ñëw ba ba ba ba wax la la la ca neexul nday ji seex nag ñaaxaan naay lay tëddee. Mm, ndax ko wax nga ko sa biir wax nee nga yàgg kii da a yàgg. Ah, te bul fàtte ne maa ngi it dañoo yàgg. waaw waaye nday ji seex moom ñaaxaan naay lay tëddee yow nag moom maa ngi lay xaar ci buntu kër gi. Ah. doo def dara. waaw génnal yow génnal rek génnal du la def dara génnal. Ah, euh, man hmm. quartier bi moom fexeel ma yow hmm. man ma defoon bu ko fàtte kii liggéey. dégg nga liggéeyut de. dafa fukki at ak benn ci ren. ma ne waxuma la quartier bi. Hmm. mais palais de la république laa fexe nga laa fexe nga dugg fa. Hmm. jiite réew mi hmm. réew mi gis ni ko tey Sénégal yëpp xam ne. Baye Ngooñ moo jiite réew mi. waaw ngir naataange réew mi. soqale ko ci ngooñ. est-ce que Baye Ngooñ jiite na réew mi Sénégal. naa jóg naa jóg quartier bi jël nga lépp. palais de la république moom. Eh, fan yii nag Pape xaw naa dëgër de fan yii moom mënu maa jaay dama dama a ngaa joxe addiya it ah xam nga dara macha allah bu bu fi kii rek fële kii yëg ko. xam naa dinaa la <laughs> ah, ah, si sama numéro bu bees bi. waaw kay bu ñëwee rek mu yëngu de fa la yëngu de bu fi yëngu rek fee yëngu. incha <laughs> allah